Ndeye Saly Dieng moom ministre de la femme moo jugoon yëkkati ay tànkam seeti soxna Astou Thierno Mbacke fii si Touba Darou Khoudoss ngir ñu ànd jàppale président Macky Sall mu am ndam fii si Touba Darou Khoudoss ñu teewlu kàddu yi ñu fa jot a yëkkati. allo allo. mu doomam di ajaratu ami Cheikh Yaaba dend ak nag it doomam di soxna Asu Mbàkke mu yaa musli mu moor xari mu mayib aw balla xari yaa ba ma sàmba xari jeng xari jeng yàlla mbiru Amadou yàlla saa xewar Fatma sa maam kon ñëw nga sa kër ministre. département yi di dem ci région yi di ko di di financer région yi ak département yi ku ci nekk di am téeméeri junni ngay liggéey mosu fee am. booba sax mbokk gi dafa gàtt dafa gudd fi mu ne te temps bi mayu ko ko. ñu siwaat ci wax ji ma wax leen rek ne leen soxna Ndeye Saly dafa ñëw pour nemmiku si leen xam seeni programme ak seeni préoccupation mu régler ko loolu moo ko tax a jóg. ginnaaw doxu mbokk gi mu ànd ak soxnaasu lépp lu muy dox suba ba ngoon luy may victoire président Macky la le 24 février ci la nekk ma bëgg nag yéen ñëpp nii mu moom mu amee farlu jàppale nit ñi ba ña war a jot financement jot ko ba ñenn ñi tàmbalee fay te mu engage wu aussi balaa mu fee jógee dinaa dajale ña nga xamante ni que ñoo fi jot a des jox ko ko comme na ma leen ko waxee woon su boobaa man danaa def suivi bi ak soxnaa su fexe ba ngeen jot ci incha allah ma bëggoon nag dolli rek ci li may wax mooy soxna soxna si madame laa ministre am nga fi ay responsable yu jàmbaare damay bañ a tudd tur waaye danaa tudd benn benn soxna soxna yi tudd ku mel waaw su ma tuddee dama su ma limee damay juum te damay bañ ko ma mere waaw maanaam même soxna Astou Bassel moom ñoo bokk maak moom soxna Astou Bassel ñoo bokk benn ñoo bokk benn section bu section numéro 3 bu Daaru Xudoos moom ñoo bokk benn group bu ñu àndi liggéey donc yeneen section yi peut-être sept la ba huit mënumaa maîtriser lépp mais ñoom ñi nga xam ne gis naa leen fi muy madame Mbacke muy keneen ak keneen salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi parce que ñun kilifteef rek ci la ñuy dox bu ñu sañoon rek soo yëkkatee sa kàddu ñu doot ñu wax yaay suñu kilif fii administrativement mais du nuyu soxna Astu Cerno Mbàkke nga xam ne yàlla moo ñu boole yàlla yàgg na ak jàmmam Lat Joor ko ñu loo bokk ak tubaab mu nu yàgg loolu moo ma boole ak soxna Astu ak Serigne Touba Astu Astu bu boole maa moom ci kër Serigne Sidi Abdou Lahad Mbàkke bi nga xam ne moom rek laay noyyee ku gëm gëmal ku gëmul lool mooy sama principe lool laay doxee Cheikh Astu Mbàkke ga yaa woo ci affaire bi ñu jàpp ci loolu fas ñu ci da jàpp ñu woote ci suñu quartier bi fii di Darou Khoudoss ngay fii suñu kilifa présidente amut fi suñu présidente ndax Serigne tubaa moom mooy Serigne tubaa amul morom soxna Astu bi nga ñu woowee ñu woote ñëpp ñëw nañ teew madame la ministre xëy na tey sax la ñu toogaal gën a jàkkaarloo mais recevoir nga ak suñu ministère nga wax ñu dégg nga jëf ñu gis ñu sopp la ci lool lool gor kàddoom rek la am. madame la ministre financement yi vraiment dugg na biir tubaa bu baax a baax baax mais daanu dajul suuf su dee su ma ànd ak sama ay naw la ñu ñëw fii ci quartier bi suñu nee mobilisation kenn du leen ci mën te ñun peut-être amuñu moyens yoo xamante ni peut-être dinañ ci satisfaire à 100 pour cent bu ñu jàkkaarloo yow ñaan la kàddu rek ak respect bu mat sëkk nga may ñu ko ñu jàllale message boobu moo di madame la ministre am na ay femmes yu toog fii di ay jàmbaar say financement dugg si na Touba DER bi dugg si na Touba mais xam nga ne population bi ci Touba dañuy Touba deuxième capitale du Sénégal kon am na loo xamante ni jàmbaar nga macha allah yàlla la yàlla fal cat yàlla na président daal depuis am deuxième mandat mais bu ñu fàtte doo ñu fàtte sax mais nag madame Mbacké ma lay xam ne yow presque yaa fi la la représentatrice du ministère de la femme de la famille du genre nga bàyyi xel ci ñun nga bàyyi xel ci quartier bi ñu bëgg Macky Sall la fi nekk ñu bëgg président Macky Sall ñoo fi nekk di nooyi ci moom man ne ku ma wax sama kër sa marron beige rek ma ne président Macky Sall ou rien kon loolu nañ ñu ci jàppale nañ ko dimbale. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu sama mbokk soxna yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm euh, ginnaaw bu ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba di ñaanal sëriñ mun Mountakha mu yàgg fi ci wér tey lii day bis bu am solo ci ñun soxna yi tey dañoo am gan gu màgg gan gu baax gan gu bëgg soxna yi vraiment muy ministre de la femme ñëw fii tey ci biir këram ndax kër gii mu nekk muy kër sëriñ Mourtala ku ne umpale na sëñ Mourtala mooy mbokkam soxna Mously Diop jigéen ju baax ji nekk ci biir mooy magam ku ne umpalewul loolu kon tey vraiment am nañ daal euh, mbégte ci daje giñ daje ak soxna yi bu ñu leen woo bu leen wootee ngeen ñëw ngir rek président Macky Sall rek moo leen yëkkati. te ñun bëgg-bëgg lenn rek la madame la ministre mooy incha allah mooy falaat président incha allah mu toogaat ci palais ba amaat egg na liggéey bi loolu merci beaucoup di nuyu soxna maam Khady ñu ngi sama mag di nuyu soxna Amida di nuyu soxna maam bu Sëm Alaaji Baara di nuyu soxna maam Diarra Fass soxna Ndiob soxna Ndiob foofu laay mujjee di nuyu soxna ñoom ci man lañ bokk man lañ bokk nit. Euh, madame la ministre ñu ngi lay sant bu baax. cant gi nag dama koy jiital ci soxna Amine soxna Amine yéen a ngi lay sant bu baax ndax moo mag ci kër gi. tey boisson bu bari la jënd na man bëgg nga joxal ma ko madame la ministre. parce que ni ma la bëggee ak fi mu la teg semence yi ku la bëgg bëgg naa ko. ku la jàpp jàpp naa ko te xam naa madame la ministre ku ñu ngi ñi ci biir kër gi sant di la gërëm sa taxawaay ci ñun. ab Cheikh Moutalla. ndax fi nga war a mën a dem mhm. waaye vraiment li nga def nii dafa rafet. ndax ñëw gi nga ñëw déplacé wu. ñun dëgg yàlla kontaan nañ ci. Mhm. ndax ñun te lii ñun mosuñu ko sax am ministre de la femme buy nemmiku nit ñi di di di safara nit ñi di faale nit ñi ñun daal amuñu ko woon ñu ngi soog a am lii la xam ne moom la président jox yàlla na continuer ci barke Serigne Touba buñ ko gàttee mu joxal la yeneen ak yeneen ak yeneen ci barke Serigne Touba vraiment kontaan nañu suñu xol seet na di nuyu soxna Asou Ba soxna Asou Ba su ma tudd su ma tuddee rek mel ne tudd naa ñëpp soxna yéen yëpp maa ngi leen di nuyu di waaw sama sama xaritu déwén yeeg loo koy yeeg ñëpp ndax ak xale yi xale yi ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ñoom ñëpp di nuyu sama doom yi bokk am cher di nuyu nag koo xam ne moom ñoo bokk doom ñu ma say vraiment ñu ngi lay sant bu baax. yaa ngi defoon yaa ngi glace yi ngi yàlla xam naa taxaw di wax sax man moo xanaa. dinañ bëri mu sax man li ma koy def nii ci ci bërëb bi waaye. mu dëgg yàlla lu yëngu mu ne rek. da koy gën a gën a doole. dëgg la moom boo mënul woon a wax sax jéem a jaay na nga liyaar ndax rek ndeysaan jar na ko xam nga ne euh, liñ naan dompat ci sot la bokk ndax bu ko nomee muy sunu deret a def danañ ci jóg jàpp ci ah, te bu doon loolu sax man dëgg yàlla jóg damay toog waaye nag yow loo nekk lu ne dañ ciy di la jàppale ba yàlla defal la ndam ci li rek la waaye di la gërëm soxna yi nag ñu nii comme ni ko Moussa Ndiaye waxee ñu bari moom tubaarkàlla macha allah financé nga leen ñëw nañ Mbacke ñu financé leen am na ñeneen ñu des nag mais ñeneen ñu des nag incha allah deuxième tranche bi incha allah bi ñu yàlla ko am. mooy madame la ministre jël kaddu wax ak yéen soxna yow tey laa ma si gis xanaa dëkk mbékk yi dem ba suñu fàll mooy ma jëlal micro yi jox ko soxna tey mooy sa ñaareel bi yoon ma gis nga jël kaddu xam nga lu monsieur Ndiaye. waaw bu ko neexoon mun na waxal maa mbooloo mi. waaye dafa bëgg kuy dem yu bari image moo xam ne kii fi ñoo ñor ma ko. dëgg la lu jigéen lu góor ji ni suba lañ def. jigéen ji def ko ci guddi gi toog di leen xaar. moom tey la may def. taa ci leen loolu waaye. kan mooy a mise la femme daana fi am waay man wax naa ko ba taay. waaye xam nga bu amul lool. kii toog kon Papa Dieng ñii moo yëngu. président bëriwul ku mel ni yow maa ngi waxoon man. président Macky Sall bëriwul ku mel ni yow. bi nga duggee département bi. woo ñëpp ñu ñëw nga ne dama leen dig financement. et finalement daanañ ko dégg waay. waa di ci baagante ba jënd fu lu mat fukki paire daal te doo ci jot. barke Serigne Touba Mbacke ministre baa ngi nii Ndeye Saly Diop kër Papa Dieng jàmbaari Serigne Touba jàmbaari Dieng ji di Seye Saly Ndeye Saly Ndeye Saly Ndeye Saly Ndeye Saly. asalaamaaleykum wa rahmatulah di sant yàlla bu baax di lu jënd ci biir sangu sang yi di sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba fii ñu ñëw ci Touba sax na soxna Astou Moutala. dem ci am nag mbégte ak fierté du ñëw nuyu sama sœur sama rakk waaye sama xarit nag soxna Astou Mbacké ok jàmbar ngay ku baax ku bëgg lu baax boo ci yar ak teggin xam sa bopp ak bëgg ñëpp waaye ñi nga bëgg ñëpp ñëpp la bëgg noonu soxna naa soxna ma dama lay woone Eh, non stress. problème nag. waaw solution ci xol la nekk. ndeysaan. ak gore ma bëgg la naw la ndax ku bëgg sa mbokk bëgg lu baax defal la baax ba bu la neexoon ci bu la neexoon fort ndax suñu motulaa mooy sama baay rek doy na ci sa fii Sénégal. waaye soo ci lenn da nga baax wàcc sa bopp bëgg nit waaye noon nga bëgg ni ñoom ñu ngi bëggee soxna si maa leen baax. di la ziar di la sargal di la jox sa wàccuwaay. te nuyu nag sama yaay ji ci biir bu baax moom tam di kontaan ci moom ku màgg gërëm sa ndey baa nga xool. aywaay. ñu koy gërëm moom tam di ko ziar di ziar soxna Ami Mourtala suñu mag di baax jooju moom tam nekk ci kër gi yàq dara. ñu ngi koy ziare bu tax wàccuwaay di ziare suñu yu baax yi toog yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ne turam santam bañ lim su ma limee damay juum waaye yéen ñëpp xam leen rek su ma ñëwee soxna Ami naa képp ku sant Mbàkke rek dëkk toog fii ci jotaay bi. ñu nuyoo nag responsable toog fii yëpp maa ngi leen di nuyu kenn ku ne turam santam rek nuyoo bi soxna Asou Basel mi nga xam ne mooy jigéen jàmbaar dëkk ci koñ bi dëkk ci gox bi dëkk Daaru Xuddoos. jàmbaar sëñ si dëkk la soxna si maa ngi sa wàcc waaye itam di la baax di la sargal dama tey fi ma ñëw nag Daaru Xudoos sama kër laa ñëw sama kër maam laa ñëw fii laa dëkk kon du fi gan déedéet damaa ñëw rek que xam naa li yëpp da nga bëgg rek lu ma neex waaye mënu que da nga man di ma jàppale fu ma nekk taxaw sama wet bu ma dugg dugg ci fu ma la kon man mënu ma laa fay xam-xam jamono ji rek ak xam ma ñëwee fii moo tax USDS waaye soxna si yow la xam ne laa moom lépp ci man lu ma joxul dama ko amul loo bëggul ci man rek dama ko laajul. dafa gore ma yaa ma ko ci. di nuyu soxna maam Seye bu baax sama rakk jooju moom baax di sant di la ziar di kontaan ci yow. di xam ne suba ba tey maa ngi ñoom a ànd ñu dox si biir Touba di seet parce que loolu sama liggéey la waaye Touba dama a sama dëkk la. ku fi nekk sama mbokk nga ku ma bokkul Touba rek te koo Touba ñëpp laa bokk. waaw ah, dëgg la de <laughs> loolu dëgg la. kii ma fi ñëwee sama teex ma nekkee a waxal waa département a woo jigéen ñi waxtaan ak ñoom finance tam fi laa njëkk a ñëw financé leen parce que loolu daf maa war ngeen nag kenn nag Sénégal jigéen ñi ndax Touba dafa naa ne ku wax Sénégal Touba ngeen di ko ku wax Sénégal Touba ngeen di ko parce que fii nag. ñaanukaay la di bërëb bu tedd la boo xam ne lépp lu ci bëgg a def fii dugg ñaan ko mënuma nag président jëm ma duma dugg Touba damay sama tànk Touba mu am ndam ndam sedd guy yam loo xam ne ci Sénégal te lépp nekk ñëw ci parti bi ñaan ko mag di nuyu nag soxna Ndioba Mbacke moom tam suba ba léegi bàyyi na soxlaam bàyyi na fi ñu ànd ak man si liggéey bi kon soxna si maa lay remercier bu baax di la sant di kontaan sa taxawaay su ma duggee Touba bu ma gerte dama lay gis su ma la te xam naa ne activité jamono dafa dafa xaw a taat tuuti ñu nuyu soxna Mati Diané moom tam la même chose moom tam fu ma dugg Touba mu dugg ànd ak man moom tam soxna si maa lay nuyu remercier ci ànd bi ànd ak man dama jàppale di nuyu maam Thioro Diouf bu baax moom tam di ko remercier ak délégation bi ñu àndal di kontaan ci yow di la nuyu di remercier di nuyu nag madame Mbacke sama sama jëkkër moom tamit man tam may kilifaam. ma nga mbàkke rek de yem ci loxo. kon maa ngi koy moom tam di ko nuyu muy xale bu baax bu yaru ku ma jàppale ci liggéey bi fii di ko baax kon soxna si yow tam maa leen nuyu baax di la sargal di la ziar ak ku may ànd lépp képp ku àndal rek ñëw ci délégation bi. loolu tey rek damaa ñëw fii ci cadre campagne électorale bi seet si jigéen ñi xam naa dama war a jël deux jours sax nag parce que Touba yaakaar naa benn fan doy parce que fu nekk li may xaar am na su ñu ma mere ba gerte mais comme nag moom maa xasam bopp fukki nit dafa moom dañu dem fii dem fii demaat fii su xajee rek ma seeti ñëpp parce que ñëpp ma bëgg a gis man tam ñëpp laa bëgg a gis parce que ñëpp samay mbokk lañu ñëw nag di ñaax nit ñi rek nag ci jàppale président Macky Sall parce que yaakaar naa jàppale président suñu bopp lañu jàppale ci liggéeyam ci bilan loolu defe naa muy wax na ko léegi góor bi moom gis bokk ci dëgg la di bilan bi Sénégal ci lu baax jëf ko ci askan bi jëf ko ci économie Sénégal def ko ci infrastructure def ko ci éducation def ko ci lépp loo xam ne ni ñëpp yella woo rek képp kuy àq ak yelleefu nit président jox na ko marché la ko de. particulièrement ñun jigéen ñi na Sénégal. kaso rase la ñu lu bëree bëri yaakaar naa ngeen ko financement daan na ñëw Touba waaye financement bi ñëw Touba rek. mu bi daa ñëw déplacement. DER ba Touba déplacement DER maa ko wax man ba biir Touba. ñëw nag def complété financement yooyu ñu indi fii financé département de Mbacké jigéen ñëpp am na ñëpp a gëtuñu parce que daan dagg suuf mais yaakaar naa biar bi mu ñëw moom sax am na lu ci loolu yëpp nag ci président bëgg jàppale askan moo tax ma mhm. ko. jàppale bi nag soxna Astou da ciy bu yàgg am na taxawaay bu rafet di ci liggéey jàppale son excellence te bëggu ci xam ne ñoo nekk ci kanam di war a jàppale askan bi nga war a jàppale. mu ciy liggéey lu baax sonn ci li tax ñu nekk moom tamit kon nag ñu ngi ñaan ci barke Serigne Touba barke suuf si bi ñu ñaan son sa le président Macky Sall yàlla nekk ko deuxième mandat. Sénégal jëm ci kanam lépp lu muy yéene egg nag ci Touba gi parce que Touba nag président jëfal na leen ku jaar Ila Touba defe naa a wotal président ndax nag fii ñu xam ñoo fi dëkk ñu ràññee ñoo jëfal leen nag projet boo xam ne Sénégal bi mu nekk Sénégal ba léegi benn projet infrastructure routier mosu ko am. oui 400 et quelques milliards mooy ko Ila nga jóge Touba ñëw Dakar. wala nga jógee Dakar ñëw Touba def une heure trente loolu defe naa ko ñoom dañuy génn sax ñu ne mosul am donc président nañu ko jàppale ndam la ñeex na loo waaye Touba dañu ko am ko jëf na ko taxawoon liggéey na leen kon Touba ñu ñaan kenn ku ci nekk rek nga jël sa carte incha allah le 24 jox ko président bi nga xam ne mooy président bi Sénégal le meilleur président du Sénégal depuis le 1960 au jour ñu def kenn su ko fay def. fonk tarixa yi fonk diine yi defalee ñu kenn mësu defal maanaam bu ñu loo Touba yi dem dina si jiitu kon ñu sant bu baax di gërëm bu baax di félicité ñëpp di nga encouragé di ziarat rek ak góor ñi ak góor ñi aussi ñu ñaan rek nag ñaan parce que ñaan moom dafa am solo loo ci ñun boo déggee dëkk bi dal dëkk bi am jàmm dëkk bi yokku c'est parce que ñu baax dëkk moo tax kon bu ñu ñëwee dinañu war a ñaan suñu borom parce que ñaan moom amu lu mu def ci dëkk bi am jàmm nag parce que ay ñu fi woote yal na ci musal jàmm la ñu bëgg Sénégal ndax jàmm la ñu ci jigéen ñi bu amul jàmm ñoo ci gën a sonn hmm. comme président jàmm la indi xéewal la la indi Sénégal dañ ko jàppale am deuxième mandat parce que loolu mooy njëriñu waa Sénégal kon sant ak gërëm rek ak remercier soxna Astou bu baax encore une fois sa jàppale sa baax sa oyof vraiment man mënuma laa fay lu wax ci yow rek dafa am dépassement de xol yoo xam nga li ma la wax kon sant naa bu baax gërëm naa baax man nag am naa ak moom jóge Sénégal dem états comportement bi mu am fi am fee ñu ngi naw ko jox ko cër na ma gane sa biir dëkk sax waaye boo demee ci dimbalu am noonu may waaye nawet lii rek la ngay gis da baax lool yarul lool dimbal la ñëpp bëgg ñëpp jàpp ñëpp kon ñu sant bu baax di gërëm bu baax ñaan yàlla sunu borom yàlla barkeel te incha allah le ñu am ndam ndam li sedd buñ ko Sénégal ci